de gamme j'espère que vous allez bien obligation en dollar au Sénégal nous en chute libre qui voit le li ko sabab nak du len lu dut révélation Ousmane Sonko ak gouvernement bu Sénégal ci compte yeeg li fi nek ak ñu Abdoul Mbaye deugal premier ministre Ousmane Sonko tanan lu ci bari ci ay chiffres dañ ko don manipuler ngir yegal taux de croissance ci bitim rew Juan Branco document yi mu fi don dajale ngir top yenn ci sénégalais ci crime contre l'humanité justice bu France dinañ ubbi sen l'enquête le 6 octobre bi ñu dëgmal atel nenañ dinañ porter plainte état bi fi ne ndax walu populisme ak dictature lañu bëgg yoré rew mi mi Déthié Fall daal ne jegewut dara ak Amadou Sall domi président de la République momit uh, xibar na ni juróom benn weer a ngi ni wul ak Diomaye wul ak Sonko Amadou Ba mu nga rabaski lepp la desoon ca Benno Bokk yakar wa APR ñoom it dinañ génn pour indi ay leeral ci tuuma yiñ tek fi kaw yoy yep ay mbir yu fi xew la Moussa Bokar cham mambay ñang ci walu reddition des comptes daan leen ko woké yagu dara euh, ki ñu wax Kader bu Sen TV dafa joxewon ay information ne ay policier dañu leena guerre ci xale yu nekkoon ci gaaluloo ci doon génn réew mi moom it daan ko convoqué tey ci cybercriminalité mm, Moustapha Dramé moom yoon jàllale ne ko port autonome bu Ndakaaru dafa am ñu fa nekkoon def gang di falsifier ay signature ba lekk lu war a tolloo ko huit milliards yoon dina leen teg loxo foofa ca maatam mbayum ceeb ma am na gàllankoor ndax ndox ma dugg na ci ay gox yu bare bari ak i tool boo sàggoon dina indi jéeye ñoo ndox jàmm